mais pour cette information yéen ñep jour mardi bi ci 2h du matin njagandu daf maa woo ne ma reetaan di reetaan ne ma ndax yaa ngi dégg li ñuy wax te ñii ñoo yobaate yaa ngi dégg li ñuy di wax di reetaan mais bul ci wax bu kenn wax balen leen ñu wax alors que nit da ngay am kilifa buñ la né li buñ la ci dégg wala buñ ci wax do ci wax mais ñi fa nekkoon xam nañ 17h30 bi ñu paree njaga dafa rangé ay yëfam tek na le ñay yoroon régie protocole bi ñoo doon parce que bi mu jeexee match bi jëlaat nañu micro di wax pour waa Sorano yi yooyu yëg dañoo coupé mais lii noo koy waxee tant que ñu organisé génn ñu wax nooy waxee lii tant que Wally mi concerne wala Fally Ipupa mi jéewul wala Youssou Ndour mi ñu dagg wala Ndiaga Ndour mi ñu waxal wax nañ koy waxee mais quand même da ngay xam ni saaga benn fan ñaari fan ñetti fan saaga Youssou Ndour loolu du ma ci aara man mënu ma ci awaat neexul ci xol

mbooloo bokk ndey bokk baay stade bi ñu koy ubbi c'est pour mu rafet donc yal nañu yàlla sàmm yal na yàlla ñi am ay xalaat yu ñaaw ak di wax lu ñaaw yal na yàlla soppi seen i xalaat ba ñuy mën di xalaat lu rafet ak di ko wax quoi